محمد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 وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بمنك وإحسانك يا رب العالمين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بنور ربكم وعضوا بالنواجذ على هدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده والزموا الجماعة وإياكم والفرقة فمن فارق الجماعة قيد شبر هلك أيها المؤمنون إن مما علمنا التاريخ أنه كلما نزلت فتنة تموج كموج البحر الهادر تحار العقول وتضطرب الألباب وتتلجلج القلوب فيعم الحق على أكثر الناس هذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان أيها المؤمنون يجب على العاقل الفطن أن يستشعر المسؤولية أكثر ويحذر من خطر الفتن والتباس الحق فيها بالباطل ورواج الشبهات بين يديها حتى تنزل منزلة الشبه المسلمات كما يجب على المرء أن يستشعر خطر الانجراف وراء الدعايات والترويجات التي يقصد من ورائها إشعال نار الفتن كما أن على المرء أن يدرك أن خلقا كثيرا يعيشون بالفتن فبها يبنون ديارهم وبها يديرون شؤون حياتهم في وقت تكون هي رزية وويلات على الآخرين فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن رواه, رواه ابن أبي شيبة وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال تكون فتنة تعوج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا إن على المؤمن أيها المؤمن أن يكتفي من الفتن بالابتلاءات الربانية التي تعترض سبيل حياته يقول الرب سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويقول المولى سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فتن فتن الواحدة منها تكفي لتفتك بالمؤمن من بالمؤمن وتذهب دينه ما لم يعصمه الله تعالى بمنه وفضله فكيف بمؤمن يفكر أن يخطط في إشعال النار فتن تفتك به أولا ثم تصري إلى إخوته المؤمنين الأبرياء تفتك به من غير إرادة ولا توقع فكل من يشعل نار الفتنة يجعل في تقديره أنه ناج منها والعكس صحيح وذلك بالتصريح من خالق الخلق ومدبر شؤونهم فقال تعالى في قرآنه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أيها المؤمنون إن الإيمان الحق يجعل المرء يحب لغيره ما يحب لنفسه يفكر في السلام لا في الفتنة وفي البناء لا في التدمير فيخلق البلابل والشائعات الكاذبة بين أوساط المجتمع فيستخدم وسائل التواصل الاجتماعية من صحف ومجالات وإذاعات وتلفزيونات وبقية الوسائل من فيسبوك وواتساب وغيرهما ينفق عليها أوقاتا كثيرة وأموالا طائلة فقط لإلحاق أضرار قد لا ترتفع بقية حياتي والأسوأ من ذلك كله إذا كان مروج الفتن بعيدين عن الأوطان وليس لهم مصالح في موطن الفتنه فاتقوا الله في أنفسكم أيها المؤمنون وراقبوه مراقبة من يؤمن بأنه يسمع ويرى واستحضروا معاني قوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سورة النحل ويقول المولى سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ويقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يا رسول الله كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار رواه مسلم أيها المواطن أيها المواطن الصالح إن الفتن تعصف بالأمم والدول والمجتمعات ولا ينتفع بها إلا منافقون ومرتزقون ومن يحبون أن تش أن تشيع الفاحشة والفرقة والضلالة أولئك الذين يشعلون الفتن ثم يخرجون أيامها لينفثوا سمومهم بهدف إهراق دماء المواطنين الأبرياء وتضييع أموالهم وإرهاب استقرارهم الذي أنعم الله بها عليهم نجانا الله من الفتن ونفعنا بما سمعنا من الآيات وذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المؤمنون لقد عصب الله هذه الأمة عصمها بأن جعل النجاة فيها لمن استمسك بالكتاب والسنة ولزم الجماعة ولزم الجماعة واقتدى بعلمائها الربانيين فهم صمام الأمام أمان أمام الشبهات المرجفين وزيق الضالين الذين يؤمنون بالله ربا وبالقضاء والقدر أنه من صنع من صنع خالقهم فيحسنون الطلب مالا مالا مالا كان أو جاها أو غيرهما من من المناسب والممتلكات الدنيوية نيغي سانت يالا سبحانه وتعالى ميغا خامني موي بوروم بينديفي cant gu tolloog nam toll ñu ngi muslu ci moom suñ ayu bakkan ak suñ ñaawuk jëf képp ku yàlla dimbale nga jub képp kum seetaan nga dëng ñu ngi seede di dëggal ne yàlla moomu mooy aji bind ji te moom rekk lañ war a jaamu di seede di dëggal ne yàlla moomu kenn rekk lañu toppaloo te mooy muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bu loolu paasee bokk yi maa ngi woo sama bopp di leen woo ñun ñépp ñu bokk ragal yàlla ñun ñëpp ñu ngoy ci buumug leer gi nga xam ni moo jóge ci yàlla ñu ŋànk ko ak suñuy ci ñu téere bi yàlla bi ak sunna su yonent bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam ak sunna su ñi nga xam ne ñoo ñëw gannaawam ñu di leen tuddee alxulafa urrachidun almahdiyun min baadihi feek ñu ngi ngoy ci loolu duñ am problème waaye suñu ko bàyyee rek danañu dugg ci ay problème waaye comme niñ leen ko baaxoo di wax rek xam ngeen ni ñii ñuy wax nekkatuñ fi kitaab di alquranul karim dootul wàccati taxaw na waaye ci ñi nga xam ne am nañ dégg bu xóot alxuraan du taxaw di wàcc ba àddina tukki foo toll rek alquran dana wàcc lu bees lu jot rek da nga ko gis ci biir alquranul karim ndax alquran dafa am dynamisme te dafa am itam flexibility pour mën a dund ak ñépp mën dund ak fu sunna su yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam li ci wér dafa amé dayob alquran moom itam dafa amé dynamism dafa am flexibility moom itam day dund ak jamono ba adina tukki sunna su khulafa ar-rashidun amna ci lo xamne ci ñom rek lay yem du continuer ndax sunna la bo xamne dañ ko sos ngir seen jamono moko laaj te nonu la jamono june ñi wuutu khulafa ar rashidun ak ñi wuutu yonent bi sallallahu taala sallam nonu lañ mëna sosé sunna lolu motax sang bi mustafa ci bopam wax ne man sanna sunnatan hasana فله اجرها واجر من عمل بها waaye wa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha loolu la sang bi wax maanaam na dafay continuer ba àddina tukki ñu di ko sos da ngay toog ba mu yàgg rek benn borom xam-xam wala benn nitu yàlla sos benn sun na mooy tàmbali mbir moo xam ne amut fi woon loolu soo demee tey ci ñi nga xam ne seen njàng du ma ñemee wax xóotut waaye ci suma gisin xóotut mooy dañuy daay jees te te li ñuy daay digest mokkut loolu dafa bari ci biir eh, ñun ñi jàng koo xam ne dangay dangay dangay ngay da ngay koy da nga koy yëy te mokkut waaw léegoo léeg nga weddi loo lu sax walla nga saxal lu saxut sukkandiku ci ay kenn yoo xam ne kenn xamu ko waaye su fekkee jàng nga tërali ni yonent bi sallallahu taala alayhi wa jàngitam itam tërali ni xulafaa u rashidun dang ci déggee ne ba àddina tukki am na ñuy donn yonent yi am na ñuy donn xulafaa u rashidun te ñooñu itam dañuy am sunna yu bees xam nga mbaax benn la loolu il faut nit ñi understand ko mbaax du ñaar benn rekk la mbaax ba mu nekkee benn yàlla utal ko ñaari catégorie utal ko ñaari stages bi ci gën a kawe daf koy maye moom yàlla kenn mënu koo ñàq ba am ko loolu mooy nubbuwatu mooy mbaax gi gën a kowe waaye yàlla daf koy maye du koy jaay góor góorlu ba am ko sang bi sax Moustapha sallallahu taala sallam mi gën ñëpp bu leen foo ne da koo nda koo ñàq de déedéet ba muy am mbaaxam gi ganeegut àddina ba ko yàllay jox mbaaxam gi éegal ko ci fi ko éegal booba ganeegut àddina moo tax soo ñëwee ci boo sayri bi mu koy tagg dafa wax ne tabaarakallaahu ñu ne ko lu tax mu ne maa waxyun bi mu muktasabin wala nabiyun ala gaybin bi mu mi moo tax mbaax googu yàllaa koy may ku ko neex fayil boobu nag tëj na ko dootu ko mayeeti amul kenn ba àddina tukki ku muy joxati mbaax ak nga nekk ab nabiyu wala mursal boobu boobu tëj na ko mu am beneen stage mooy wilaayatu wilaayatu mooy mbaax gi nga xam ne dañ koy ñaq dañ koy góor góorlu waaw bugg a dee rek moo la koy may te képp ku bugg a dee am ko na yàlla joxu ko kenn ne diw sàngam moo koy am famille sàngam sant sàngam déedéet boobu ku góorgóorlu rek am ko la boobu itam am na bi toogu bi ci gën a kawe boobu itam tëj nañ ko joxe nañ ko waaw boobu mooy toobu toogu kat mi yetu xat mi yetu ki ko moom di ko séddale di sang bi Moustapha jox na ko Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu wa nafaana bi barakaati waaye balaa moo ñëw moom awliyaaw yi ñu ngi fi woon ci jamonoom awliyaaw yi ñu ngi fi bu fi jógee ba àddina tukki awliyaaw yi ñu ngi fi awliyaaw yooyu ñooy doon yonent yi moo tax bi yonent bi sallallahu taala sallam waxee ne al al al al ulamaau warasatul anbiya والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر سانغ بي موكو واخ ني بروم قام قام يي نوي يوننتي ندونو يوننتي نام قال الله قال رسول دي دي لول مو سي توتي موتي سي توتي بروم بروم ولي يو بو امنا اب يوننت بوم دون يوننت بام dafay don léppam mbir ma di continuer ta nonu tam non moy nek batinam te lolu moy doxal adina bi te non la adina bi doxé ba adina jeex so xolé khulafa ar rashidun nga xamne li jàngal amatu nasi te moy li jàngal ñëpp moy sharia lañ leen jàngal ndax sharia moy li ñëpp bok way haqiqa li khassati allah subhanahu wa taala haqiqa موم لي خاصة الله سبحانه وتعالى تي حقيقة غاي ديمي با دوتولو اماتي باوندري دا غاي ديلو تي تيوسان خام نين حلالك حرام اموتون با يالا عمل دا عمل دوم ادم حلالك حرام اموتون تي جامانو بوبا با مام ادم اي نيك اجانا حلالك حرام اموتون لول موي حقيقة ndax yalla li lim bind lepp moko bind lim xaraamal ci sharia lépp moom moo ko bind ndax yàlla dana bind lu bon tere na la ko waaye lu tax mu tere la pour mu xàmmee yow mi nangoo topp ak yow mi bañ a topp waaye ca àjjana balaaw yàlla wax maam aadama ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula min hadihi xamu naka shajara wala taqraba qabla an yaqula la wala taqraba hadihi shajarata balaa moo wax loolu lépp a daganoon yàlla danay dem ak jaamam di dem ak moom ba nga dellu cosaan ba nga xam ne yi ñuy wax nii yépp du yow leneen la waaye dafa yem ci yow sa digganteeg sa borom subhaanahu wa su la su la ñora di jàppee nag ba nga di leen diingat wala di teg ci seen der yi lu bon mooy ñi nga xam ne dañuy toog rek alaku duñ xam lu leen alak ndax yàlla dafa wax ci hadisul si wax joo xam ne dafa wér ci yi dafa wax ne man aada yan waliyan faqad adantuhu bil bi képp ku noonoo sama xarit man yàlla danaa la nërmeel danaa la song xeex mooy danaa la nërmeel xaritam boobu mooy kan julli juróom mu ne déedéet duur kii def julli juróom ca jàkka ja de or weeru koor déedéet añ déedéet asaka déedéet ñoo ñëpp du xarit yàlla loolu mooy sañ ta comme que bokk bokk si nga ci jullit ñi da nga koy def rek nekk jullit defoo ko rek nga nga génn ci jullit ñi kon nooy def ba xaritoog yàlla mooy ca maqta al axir fi yàllay wax ci xadisul qudsi bi ne wa maa yazaalu abdi yataqarrabu ilaya binnawaafili xata uhibba fa ida ahbabtuhu kuntu samaa alladi yasmau bi wa basarahu alladi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in saalani la utiyanna mu ne waaye suma jambi bi di julli julli juróom di or record. koor su bëggee nek sama xarit fay gëstu jëf yi nga xamné ne forcé huma ci kenn ta neex nama nga forcé ci sa bop sax ci dak né bama xarito la waye suma la xarito nak nek la suma la xarito nek la nga des di nga des ci ki nga doon yalla des ci kam doon yalla rek xam naka la lay nekké ndax kuntu sam'ahu asluhu ana sam'uhu yéen ñëpp ñi jàng garaama xam ngeen ne dañuy wax ne kaana dafa am ismu ak xabar ida daxala ala almubtada'i rafa'ahu isman la wa ida daxala alal alxabari fataxahu xabaran la ay kuntuhu yàlla dafay nekk sama yàlla mooy nekk sa dégg yalla nek sa gis yalla nek sa loxo yalla nek sa tank تصوروا من كان الله سبحانه وتعالى سمعه ومن كان الله سبحانه وتعالى بصره ومن كان سبحانه وتعالى يده ومن كان سبحانه وتعالى رجله حتى إذا سأله لأعطى وإذا استعاذه أعاذ وإذا استغاثه أغاث من هذا الرجل تيموي كان تمون كبير نتني نت كوكو مونتي بير نتني yàlla mu ne damay dem ak yow ba nekk sa dégg bi ndax kook foog ngeen ne déggam bi frontière mën na koo teree jàll ku yàlla nekk sa dégg frontière man ndax miir bi mun naa tere sa baat bi ñu dégg ko wala ngay dégg leneen loolu yëpp mu ngi ci biir nit ñi saxaaba yi dal di ñu jàngal ridwanullahi taala anum ajmain sharia ne lii ñëpp mënuñ koo dégg lu nekk dafa am ay nitam moo tax saydina aliyu radiallahu taala anhu wa karrama wajha kaana yaqul xaddisu nnaasa ala qadri uqulihim aturiduuna an yukadaba allahu wa rasuluh de leen waxat nit ñi li tolloo fañ toll xanaa da ngeen bëgg ñu fenloo yàlla fenloo yonent bi te alaku moo tax mag ñi suñ toogaan bëgg a waxtaan góor yàlla yi suñ toogaan bëgg waxtaan ba dugg ci lef moomu dañuy laajte ne ndax xiinut ndax xiinut waay suñ ne suñ suñ ne xiinut ñu door a dugg ci waxtaan wi waaye am na loo xam ne kenn du koy wax ci biti waaye lu jullit nasax nasax war naa xam ne diiney islaam mabniyun ala shariatin wa ala xaqiqatin hadihi tabiatu lislam wala yujadu diinun lahu tabiatun misla hada diin abadan xaqiqatun wa sharia te dañuy dem ñoom ñaar te ñoom ñaar ñëpp duñ teqalikoo te ñom ñaar ñëpp feeñ na ci hadithul qudsi bi nga xamne mom la wax léegi yonent bi sallam lan la wax ci ki nga xamne da fay top nawafilul xayri hatta uhibbahu la wax hatta uhibbahu walam yaqul حتى أحبه ولم يقل حتى أحب النوافل الخير أما الفرائض والسنن دفع وخني wa sunan wama wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma افترضت alayhi أي أنه يحب الصلاة ويحب الزكاة آه، ويحب كذا وكذا ولكن لم يقل أنه يحب من يصلي ولا يزكي ولا كذا ولم يقل أنه يقربه منه ولكن قاله في من اختار النوافل الخير أنه يحبه هو حتى يكون اسمه حتى يكون سمعه حتى يكون بصره لذلك قال العلماء المحققون من تفقه ولم يتحقق فقد تفسق ومن تفقه ومن ومن ومن تحقق ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق هؤلاء هم المتحققون نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل أن يجعلنا منهم هنا هنا مقصد رجال الله ñettelu étage bi moy maqsadu rijalillah ñi nga xamne passé nañ a passé nañ flo one flo two ñu nga ca tat flo nga xamne so fa eggee amatu ben flo buy ñëw su ko defé madad yi di la ñëwal al madadu min allah من علمه يعلمك ما لم تجده في أي كتاب وتسمع ما لم تسمع في أي كتاب أي يأتي المدد من لدنه هذا هو العلم اللدني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم آمين يا رب العالمين لما يوقتاني تي لما يوقتاني تي موي فتنة يلا نجي يلا مسل فتنة فتنة موي مبير مو قمني سقوي دفعي صوبي سيستم نيت نيب maanaam fitna mooy mooy safaanu jàmm fitna mooy safaanu jàmm xam ngeen ni yàlla bokk na ci turam yi salaam ajjana wala alaaxira mu tuddee ko daaru salaam wala ajjana huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alqudusu salaamu allahu huwa salaam mu jël diina bi bi mu bëgg tuddee ko islaam mu jël suñu nuyoxante salaam mu jël aljana tuddee ko daaru salaam ooñu ci saxaaba yi ooñu ci mu dankaafuñu pour taxal fitna wax bu siiw ne al fitnatu naimatun laana allahu man ayqada fitna mu ngi tëdd di nelaw su booxum ku koy yee fitna baaxut li fitna yi def kenn mësu koo dégg balaa ngeen koo xam rek ngeen di toppa rajo yooyu ak yi ci àddina bi ba gis palaas yi nga xam ne dañoo am fitna da ngay gis nit koo xam ne ndeysaan dund na nangami bi ak taaya mboolem lim dajale ci alal benn bés mu ñàkk lépp ci fitna da ngay gis koo xam ne dund na ak njabootam benn bés ñoom ñépp ñu ñàkk seen bakkan ci fitna kenn dootul génnati kenn dootul lekkati comme la ñu sang bi waxoon waxoon nañu ne jàmm mooy lu ne waxoon nañu ne man asbaxa muaafa aminan fi sirbi wa indahu quutu yawmi fa ka annama xiisati dunia bi xadaafiriha képp koo xam ne xëy na mën a jóg yaramam bi gis ne mën naa jóg waaye ñeme naa génn fitna amul ci mbedd mi ba ñeme naa génn te am na lum ndéexoo mu ne kii kenn ëpput ko alal sang bi yal nañu ko yàlla fayal waaw lu tax nit ñi du ñuy dellu ci sang bi maanaam li ma jaaxal li nga xam ne dafa nekk suma problème mooy lu tax nit ñi duñ dellu ci alquranul karim lu tax duñ dellu ci sunna su yonent bi ak dundini yonent bi ak la muy wax ak la muy def lu tax lu tax ñun ñuy dund ci problème yii yëpp xanaa xamuleen ne liñ baxi sunna su yonent bi saa sallam liñ baxi hadiyuhu liñ baxi tawjihaatu xanaa xamuleen ne moo ñu dugal ci liñ nekk naka la jullit di def ba nga xam ne lépp lu muy def xelam mi dana dana daj fi ko yonent bi wax kalam mi dana daj niko yonent bi waxe kalam mi dana daj niko yonent bi defé kalam mi dana daj niko alquran waxe lépp lu muy def soko waxe mune la yàlla neena yonent neena yalla def nangam wa lu tere julit ñi def loolu ba pare ñu ne na jàmm am jàmm du meuna am yàlla ken ëpp ko fayda yàlla bind la indi la fi yow indi fi li fi ne yépp mu moom ko nga beew yow doomu aadama wala nga am feebari xol di kañaan wala nga am xaqdu wala nga am baxdaau bi nga xam ne moom la yonent bi saa salaam di wax ne hiya alxaaliqa dafay wat keroog ba mu waxee saxaaba yi ridwanullahi taala anhum ajmain yàlla daf ko daan wan ba àddina tukki yàlla dafa wan yonent bi ba àddina tukki wallahi wallahi amul fenn fu ñuy toll ci jamono te duut ne mën naa laa indil wala ku jàng mën na laa indil la yónent la fa xew la ca yónent bi sallallahu taala wa sallam waxoon dafa waxoon sahaaba yi bés mu ne leen ni ma leen gisee nii nag dabba ilaykum daa ul umami min qablakum min qablikum dafa mel ni feebaru xeet ya leen jiitu woon mu ngi yukkat di dugg ci seen sàppe yi mu mel ni dañ ko laaj lan la mu ne alxasadu wal bagdaau loolu mooy kañaan ak mbañeel moom sang bi mu ne amal bagdaaw fa hiya alxaaliqa mbañeel nag soo ci àggee moom mu ne hiya alxaaliqa kooku day wat ñu ne ko lu muy wat mu ne waxuma waxuma ne dafay wat kawaram gi de dafay wat diineem képp ku àgg ci bagdaaw diineem jeex na am na koo xam ne day xëy mboolem la muy julli mboolem la muy oor mboolem la muy def ci lu baax lépp dañ koy jëlaat am kuñ ko jox te moom yëgu ci dara pour moom mu ngay def lu baax because ka nga bañ yaa ngi koy fenal yaa ngi koy rambaaj yaa nga yàq deram yaa ngi koy liggéey loo xam rek yaa ngi koy def pour koo ko yàqu lépp loo liggéey ci lu baax ñu jox ko ko moo tax góor ak yàlla gu baax ñu di ko wax sëriñ Aliyun Ka radiyallahu taala anhu ci Madina sëriñ Maas mu ne doom tooñ mooy tooñ rek tooñ tooñ mu ne mooy tooñ ku lay tooñ mu ngi lay tooñ maanaam mu ngi lay yëkkati ngay dem ci kaw moom muy bàppeeku bépp fitna boo xam ne tàkk na ci àddina bi li koy taxal benn mu tukkee ci loolu walla bëgg àddina mbëggeel bu ëpp ci àddina moo leen ci dee dugal te sax nag even kii añaan bëgg àddina moo ko dugal ci loolu te yonent bi sallallahu alayhi wa moytu woon na moytu wooloon nañu fitna jooju pour ñuy fexe muy tàkk ci diggante jullit ñi waaye am na loo xam ne nattu la bu mante ñàkk ndax soo ko seetloo fitna dafa teel a tàkk ci diggante jullit ñi ca jamonoy saxaaba ya ridwanullahi taala anhum ajmain fa la fitna commencé tàkk ba àddina tukki fitna du fi jóg mukk kon nooy def soo ci buggee mucc fitna ji lu metti metti even ca jamono jooju am na ñu muccoon ci ci fitna ji ndax islaam ñi nga xam ne ñoo ko bañ fuñ toll rek ñu ngi yàbbi seen poysin yi ci diggante jullit ñi pour bëgg a jaxase seen diggante ak fénqalante seen bop yi ndax ñoomu ñu ñu yàqoo su ko defee lislaam màbb nooy def ba mucc ci moy da ngay teey ta dal yonnentou bi saa salaam mu mune su mbir yi joggé su féké da nga doon dox mu ne mu taxawal so taxawon togal so togon teddel jogal japp julil ñaari rakka bala nga wax dara ci derab nit balaa nga wax dara ci luy taxal fitna na nga góor góorloo góor góorlu ba xam ndax dëgg la am du dëgg su fekkee du dëgg moo tax alquran wax ñu ko yaa ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ñu ne ko lu tax mu ne an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum nadimin da leen bàyyi xel ci xibaar yi ñu leen di jox da leen ci bàyyi xel balaa ngeen koo gëm balaa ngeen koo jëfee da leen ci bàyyi xel ñu ne ko lu tax mu ne soo ko defut mune da nga mere ko warta mere da nga togn ko warta togn te bu boba da nga ko réccu ëllëg ndax doomu adama ci bopam rek la ne wallahi ken defalut ken dara ken defut ken dara lu way def bopam moy li alquranul karim waxne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara yal nañu yàlla musal ci fitna alquran nag jox ñu ci benn misaal boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel léegoo léeg nga nekk ci jàmm te doo xam ne ci jàmm nga ne ngay uti leneen loo foog ne mooy jàmm ndeke loola safaanu jàmm lay doon réewam Gambia ñun dañoo nekk ci jàmm te ñépp nañ nangu ne ñu ci jàmm lu ñu ko may li ñu ko may mooy tolérance tolérance moo ñu ko may jullit daf fi dëkk ak ku ñuy tuddee chrétien ak ñeneen ñuy dund ci jàmm di demlante di dikklante di ànd di jëflante kenn ku ci ne ci sa dayo soo toogee sa mbokkam chrétien ba tusbaar jo nga ah booy may ma ma dem ci jàkk ji te ñëw mu jeex tàkk su ngeen di waxtaan ba waxtu ba jot nga ne ko may ma ma dem ci jàkk ji te ñëw bu dimanche jotee mu ne ah booy may ma waay tey damay dem ci cooj bi yéen ñaar kan moo leen di àttale kan moo leen di àtte yow da nga jàpp ne ya ne ci deug mom dafa jàpp ne mo nek ci deug alquran ñëw ne qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma taabudun wala antum aabiduna ma aabud wala ana aabidun ma abatum wala antum aabiduna lakum dinukum wa diin mu jeex tak waye fitna bi gëna a tay bi ñuy dund moy ki nga bokkat bir jakkaji fofu moy fitna bi gëna graw legi ki nga bokkat bir jakkaji nga nan ko waaw taxawal ci sapesi ngeen génn eh, nga di ko xoolee bëtëb yéefar ba nga xam ne du mos a dugg jàkka ñu indi pàcc pàcc ci biir lislaam pàcc pàcc yooyu biddaa la yëpp biddaa la ñun ñoo sosal suñ bopp ay pàcc pàcc tur yëpp biddaa la ba pare nga jàllarbiku nag di ci sukkandiku di àtte nit yooyu lu mën a indi fitna la yàlla mu ne misaal bi ma leen di jox mooy xool leen dëkk boo xam ne dañoo nekk ci jàmm comme gambia di dund ci jam ak salam ngir tolérance ngir yena bok ben ndey te moy gambia jam ji di ñew ca ndoxma ca ngalaw la ca ñaxma ngeen di dund ci jam ngeen mu ne ñu dem bam yag rek ñu daldi indi fitna fitna bo xamne da fay lak waxuma ñax gu toy gu waw gi da fay lak sax ñax gu toy lool yal nañ ci yalla musal kon mangi ngi sama bop di wo kep ku dundé ci gambia ne Gambie exemple la ci adina bi exemple bu maga mag la ci adina bi daño wara wax nit ñi ñu émuleet tànk yi nga xamne mom la Gambie yi def ñu bëggante ngir yàlla su fekke da nga bok ak nit ki la ilaha illa allah muhammadur rasulullah nga xamne moy risala bi nga xamne mom la yàlla mos di joxe amul ken kum mosa yoni te duhu da fay wax ne waxal ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru te lolu moy la ilaha illa allah képp ko bokkat risaala boobule ko bokkat message boobule gëmal ne moo la gën mu jeex tàkk gëmal ne moo la gën kenn ku ci ne su gëmee morom ne moo ko gën rek xeebante du am tooñante du am waaye su fekkee ne da nga jàpp ne maa la gën moo mooy tax yenn yi di xew yal nañu yàlla boole musal allahuma ihfid al amna wal amana wa tumaninata wa ragada al ayshi في بلادنا غامبيا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ونجنا من البلاء والفتن يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا احرسنا بعينك وعونك واخصصنا بأمنك ومنك وتولنا باختيارك وخيرك ولا تكلنا إلى كلاءة غيرك وهب لنا عافية غير عافية وارزقنا رفاهية غير واهية واكفنا مغاشي اللأواء وكنفنا بغواشي اللالائي ولا تشفر بنا إسفار الأعداء إنك سميع دعاء بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب